spectateurs yi ginnaaw euh, bi ñu demee tuuti xoolaat tuuti làmb ji jàngat ko euh, réfléchiraat mémoire yi tuuti xoolaat affaire yi mais li ma jaaxal mooy. fii làmb ji toll. waaw gars yi ngi taxawal ay làmb 2014 mais lan la gars yi ñoom dañu bari xaalis mbala yaram ya tàgg. 2013 2014 saison boobu mais loolu yàgg na ci làmb ngañ. waaw mais daana am yàgg na xam nga daana daana am ñu toog diir soog ko songi soog ko songi mais léegi léegi nag loolu dafa jeex parce que boo toogee rek gars yi mbapat ci suuf parce que booy jël la nga waroon jël daan parce que booy xool tey euh, combat booy ñaaw ak Baye Mandione waaw ci saison ci saison biir saison la taxawee pleine saison pleine saison ñu ne <laughs> dañ koy tëgg 2014 waaw waa léegi loolu mosul xew ci la calendrier fees calendrier bee fees journée fees na bala koy kenn jël te ñor na ma te ñaari mbër yi ñoo doyloo seen i ménager mën nañoo jël sama xaalis féetewoo ko. Hmm. ma moom combat bi ba 2013 2014 ñëw. waaw mais ma jox leen ko ngañ. xam nga làmb da daan tëj ñu ne. tëj leen koy jox. bu tëjee tuuti ñu ne ah ñu dawal un mois ñu commencé xawal ko. waaw léegi ci pleine saison. ñu ne làmb ji 2014 la jëm kon industrie bi ñuy wax làmb fan la toll léegi ci développement. mais dund. ñu ngi dund bu baax ngañ loolu laa la bëggoon wax jamono jamono jamono mooy dabee te xalifa bi Cheikh Ahmed Cheikh si maxtoom nee nuru sa baay baax na lool waaye nuru sa jamono moo gën a wóor moo te moo gën <laughs> boo toogee di ëkku gars yi mhm. ci suuf làmb ci suuf ñu ñu coppet ya nga xalaatoon wala nga déew ko nit di mais di naa ko kooku yegge ko kaye waaw kee nii aw fee mënoon na man de mën naa ci temps kee aw fee <laughs> surchargé kon émissaires yi émissaires yi ñi ngi ñi ngi doxantu ci kër promoteur ah waaw émissaire u lamb yi nga làmb dafa am ay émissaire waaw ñoo xam ne nag ba ñuy jaar fii foon fii fen gémmiñu kii ñëw indi waaw waaw eh, léegi loolu ci développement làmb léegi mbër a ngi lekk sax xaalis boo xam ne at ba ñëwagul waaw léegi foofu ñu taxaw fa tuuti lan la mën a jural làmb Cheikh Thierno doxu làmb laa gis man làmb waxoon naa la ni làmb dafa duuf mhm. làmb duuf rek ba ku ne di wax xam nga mosoon naa la ko wax mhm. kon duufaayu làmb boobu nag moo moo moo moo egsi ngañ làmb du ëmb wërsëgam du ëmb day xëy rek wasin day xëy rek wasin mu wóor ma ne ngañ su ma doxee madun ak maawa siise lu rëy lay indi dinaa mën a yaatal dox samay sponsor lépp mhm. ñu ma ci jot a déeyool ci sponsor yi ñun ma ñoog yow ay ànd danañ la gunge mhm. mais damay daw fëgg fii fëgg fee fële bu ñu ñëwee léegi nag lu ma teg seen loxo waaw léegi bu ñu ñëwee mhm. ba war a song léegi saison bi ñu ni ñoo ngi ubbi ñun ñëpp ñu ñëw mais man moonte naa ba pare jël date rek damay dese su ma jëlee date yi xam ne maa ko moom continuer def sama travail de sap rek di liggéey di liggéey di liggéeyal samay bis. Mhm. bisoo bis bis bu ñëw bala nga ñëw dinga fekk ma pare la ba toog yeneen yi bala ñëw dinañ fekk ma pare ba toog. ba toog. jërëjëf euh, mbokk yi euh, yéen a ngi seetaan seen magazine Roffo euh, gis nga ci koor gi nii lañ koy jàppoo di ko jàngat di ko toj ngeen di koy comprendre naka la làmb ji doxe looloo tax ñu toog fii tey maag Cheikh Thierno Ndiaye pour tojal leen làmb ji waaye dañuy def benn transition wàcc tuuti am na xale yoo xam ne ren constaté nañu seen i combat ci làmb ji ay xale yoo xam ne ñi ngi def ay chemin yu am solo. Mm-hmm. soo xoolee sax tey boo toppee littoral bi jàpp diggante Tëngéej. diggante Bargny diggante sendu mhm. jàpp dëkk yooyu tubaab jalaaw tubaab ay xale fay génn la réeroon ci lébu gi la réeroon ci lébu gi la waaw waaw jàpp yorof fépp waaw jandeer fépp waaw fa réeroon la fa amoon ci mbër yéen partout mhm. ñoom saw fayek saasu ay góor ma fay ñooñu mm-hmm. ñëpp mm-hmm. ñu dem ba loolu réer ñi ñoom Modou Diong mm-hmm. un deux loolu yëpp Mbaye Gueye Ndiaye rahmatullah alayhi ñoom Mbaye Gueye lépp réer ñi gisatuñu dara ñoom ngañ eh, ñoom ngañ Gueye eh, gisatuñu dara ama jabu gisatuñu lenn nga ñëw caaro raay sigaar fii seen Mbaye Ndiaye fii Thérèse Ndir fii ah Bécaye Deux fii nga ñëw yoof Eh, nga ñëw yoof ni fii laay toog duma dem ana muur ana Malick Niang eh, waxuma la sax ñu mag ñi dara amatul mhm. ñu dem ba tefes gi léegi nañ daan def xale yu bëri ci tefes gi ñuy ràññee ñi ci man ci jom mag ñi di leen encouragé ñuy am jom ak ngor koo ci daan soqama daan génn daan mhm. koo ci musa match nit sax bu xeex amee suq baay taxaw di xeex di dóor ñuy daanu ñuy dóor ñuy daanu ba mbër mu mag ma day ñëw fëgg ko ni ko hee mhm. yow maa doon bëre xanaa yow xeex bi du jeex nañ ñibbi waaw yooyu yëpp amatul yooyu yëpp amatul woon ngañ ko ñu dem léegi nag xale yi ba xale yi juddu ci tefes gi génn ci tefes gi wane seen bopp li man dëkk ci tefes gi waaw non dama lay indi rek eh, dañuy dem yamuñu fa waaw amatuñu woon mbër ana daam sugeer daam waaw kajoor amatuñu woon mbër waaw waaw Samba Yëri Fall ndànd la dëkkoon. Mhm. mooy maami booy Garga Mbossé numéro 2 bi. Mhm. gis nga pépinière bi ni muy ni muy ni muy ni muy jébbeewaat waaw ni muy jébbeewaat la moo lay wan ni làmb dox na. Mhm. làmba ngi dem. nga dem tey dëkk bi mel ni ay euh, fu mel ni ay njàngal ak dëkk yooyu ñoom tey seen numéro 2 bi. noo koy def. nga ñëw ba Tëngéej ñoom doomi dàngu. noo koy def ñoom xale beneen bi euh, nu mu tuuti. ñoom doogay noo leen def ak xale ba xale bi bëri woon barka démb. soog euh, doomi jalaaw doomu jalaaw. soo ko sim foo koy dugal soo ko sim. Hmm? wala Thiès ni mu raafle ni mu raafle ni mu rafle woon mbër waaw xool léegi Thiès tëpp ñeeru mbër fu génn génn leen Kajoor yëpp ndeysaan xoola Alioune bu Tiwaawan waaw Alioune Mbaye Nder bu mais moom nag li muy mbappate ëpp léegi waaw parce que xam nga mbapat mbapat dafa toj arène àll bi toj mbapat yi àll bi ñëw wàcc si capital bi bu ñëwee gaal nga fekk ko bu ñëwee Ibamaar nga fekk ko foo dem fekk ko fa mbër noonu lay def xale yu mel ni Modou Anta day xëy toj réew mi ñoom ba booy. Euh, assurance xoola xoola. Mm, ambulance xale ba dëkk jandeer bi ñu ñëwee. Mm-hmm. ba ñu ñëwee ci làmb fàllu njaay ja. waaw waaw. xoolal lu mu ñu wax. waaw. <laughs> maay donay Abdourahmane maay donay Mbaye Guèye Ndiaye maay donay sama maam mbay Dia. Mm-hmm. maay donay maay donay Mboor maay donay Lamine Ciss. Mm-hmm. maay donay jandeer tund jandeer yëpp. maay seen doom Mbaye Dia numéro lépp lu lépp lu rëccoon jandeer maa ko fay dellu. nga rëcc ñëw yoof. ñoom ah. Malick Niang. xoola Malick Niang. bu ñu nee Malick Niang rek sa xel dem L5 moog du bàkka ak surtout surtout jaraaf euh, Issa Thiaw euh, Issa euh, bi. xoolal tuuti xale bi. Modou Dia Modou Dia. xooloo loolu xoolal sa xel day dal danga naan mag ña nekk mag dekki nañu ndax seen i sët a fi ne. ana jaraaf Samb. Mm-hmm. ana Malick Niang. ana Ousmane Ndir. Mm-hmm. ana Demba Thiaw Ndir. ana Cheikh Issa ana Talla Diagne. ana Ndebane. ñooñu la xale yi furli léegi. léegi seeni sët. ñoo furli dekkal nañu jajjee nekkoon ca tefes ga. yokk nañu soow mi ci xàmb yi di tuuru nuit et jour moo tax béggal nañu maam njare xoolal xale yi du ñuy bëre. Mhm. da lay jaaxal sax. kon mbokk yi dañ koy tëje foofu ci espoir yi euh, seetaan quelques komba espoir. laaj na Sa Thiès laaj na Malick Niang ku suuf la ba dal na Sa Thiès nee na yi jóg waa confiance bi nekk si Sa lan la jël na ko ma ne na ko dana ko dóor mu daanu de dana ko wàccee de Sa daanu na Malick Niang daan daanu na Malick Niang daan na na ko Malick Niang daan na ko kii arrêté rey am na champion Sa daanu na lay lay la laa daa jaaxle xoolal ma rek Sa Thiès daanu na première défaite la ilaha illallah dina ko jëli rakam la. jublu ko ci góob yi ne ko kar mais Sa Thiès day dugg day dugg oh daan nañu rek ko Balla Gaye ba. moo daan jël moo Pape boo ko nee da koy jeexal xar jëppan na ko xar jëppan na ko moo taxar na ko moo taxar na ko baax na baax na dana la juutal daanu na daanu na moo daan daan na Pape Tine na ko waaw daan na ko daan na ko. daan na ko sud am na waaw moo daan daan na ko alam daa doomu dangu ndeysaan léegi saison bi waaye jongante du tëj de Médoune waaw maturé bu ndar laay làmb bëri ay phénomène jël na tànk bi buux na ko buux na ko jàppante nañu jàppante nañu jàppante nañu alam daa war nañ ko ndomba takk na ko doomu dangu daan na alam daa toog ci kawam doomu dangu daan na alam daa toog ci kawam waat baaxul waat baaxul mbër du waat mbër du waat fii nga toog naan billaay dama lay daan daan nañ la mbër du waat jërëjëf euh, Cheikh Thierno euh, xam nga euh, booy xool xale yooyu wane tey. ngaj danaa ne indi Moussa Ndoye Moussa Ndoye waaw yaraax foo koy dugal ci xale yooyu waaw. ana mbay Faye bu yaraax. bu yaraax ñoo ko ana Ablaye mu yaraax. ñoo ko furli ana góor mag mu yaraax. ñoo furli xale yi ñoo furli te boo xoolee ci benn jamono. caaro yi moo defoon révolution bi. bu mag ñëpp yaakaar leen am na xale yu ndaw yu fa nekk Thérèse 2. trésorier numéro 2. numéro 2 waaw mais mais trésorier numéro 2 dafa am lu ma lu ma jàngat ci moom. parfois day day médiocre. waaw parfois day ñëw day indi xoolal ni mu bëreeg euh, booy noto. non moom météo la xoolal ni mu bëreeg booy noto. mais loolu la météo la est-ce que manqué wul encadrement. loolu lay tuxal complètement day fonk mbër gi téye ko. waaw jox ñi mu war a jox boppam. ak combat bi mu mujj jox leen ko ak euh, mbis. waaw yow su ko defee. day bokk ci ñi war a bokk ci làmb la bokk looloo dal doogay mhm. mbër doo ko foowee doo ko caaxaanee bu ëllëgee ñi nga bokkaloon maa seeg ñoom bu bu ñu jàngee ba tekki ni maa moom lii maa moom lee maa mbër mi mën a taxaw ni maa moom lii maamoom lii maa moom lee fa làmb toll. fa la làmb toll làmb kenn dootu ko foowe. jërëjëf euh, fa la làmb toll di fàttali ne xale bu mel ni Koña feeñ na ci. saison euh, ak xale bu ñëw mel ni feu rouge. bari jom xale bu mel ni góor góor a sokk. am na xale bu nekk a góoraat. waaw góor waaw waaw gis naa ni muy daanee xale yi attention. attention mag ñi <laughs> ñi ko xaw a dab dawal. laneen la. mag ñi bàyyi nañ ko xel seen kaw la jëm. am na ci xale boo xam ne nag moom xale buy mbappat la ci làmb. Mhm. ndandi faal. waaw waaw dama gis euh, bëreem da koy mbappat et puis gis naa ni muy négocier ay ay ay ci biir bëre bi. xoolal xoolal laay laay Pythagore la xaw ma. mais xoolal boobu génération. ñu nar leen nëbb xoolal noiro. xam nga nag xam nga nag xam nga nag xam nga nag euh, Cheikh Thierno foofu xale yi dañu war di def calcul. xool laay ah. Pythagore bi mu def ci feu rouge. waaw léegi bàyyi na ba feu rouge rëcc. toog toog daan mbër mu raw laa ngoog ba pare toog. daal mbër mu raw. fooru jëm jëli xale bi nga xam ne mooy meilleur espoir ren. mën ci xale yi. muy muy muy muy euh, Jokkel. Jokkel dem daan ko daan jiwu ko daan. xoolal ko rëcc na waaw. rëcc na rëcc xoolal exploit bi. lu laay wax. laay pitagore mu ne mu ne mu ne dëgg la daan na ma mais dama ko raw làmb boolewuñu. looy wax <laughs> looy wax. waaw déedéet kooku looy indi te moom mooy sàkku revanche ci laay. revanche ci laay. moom moo ko war a sàkku mais là à l'heure actuelle laay fexe na bëri ci ko laay koy soxlo laay koy soxla loolu euh, dañ ko jàngat rek ci quelque espoir waaye dinañ ñëwaat ci yeneen yi beneen yoon euh, ndax temps bi dab nañu waaye mbokk yi tey dafa am loo xam ne dama leen ko indil ci koor gi euh, di ko ànd ak yéen pour ñu xool ko moo ne ci biir làmb dafa xaw a dominer làmb nag waaye booy wax dañu naan pourcentage am bariwul ci làmb Cheikh Thierno xar fa xuufa ci làmb ban pourcentage la am. ngañ muy mbër mu sippeek mbër mu sëfëg ñoo ci am kenn dugg ci làmb te yóbboo xar fa xuufa. dama dégg ñu naan ay 2 pour cent la ci am waaye du pour cent waaye ban 2 pour cent day ànd ak yow ba mu jeex tàkk xar xuufa làmb ànd. fu doole nag ngañ ni lay seetaan ci doomu aadama. Hmm. li lay tudd ci doomu aadama tiim la. moog doole moog doole. laaloo lenn xar fa xuufa. ak doole boo mën a am boo laaloon xar fa xuufa doo dem. kon moog doole ànd. dañuy ànd dañuy wax premier sëriñ mooy doole entraîné nii nii nii bien vrai am na ñu leen ëpp doole man leen foofu bés leen i mbappat ba mu jeex di leen bés ci biir camp d'entraînement yi. Mhm. te mënuñu bokk. te mënuñu arène. mënuñu bokk. bu ngeen xeexee ñu dumale. entraînement. daan la. Mhm. te mën la ci mbapat ya. te boo leen demee arène. ba du ñu bokk ngañ xar fa xuufa dafay ànd ak nit xar fa xuufa dafa ànd ak mbër. mais est-ce que dayo bi ñu ko jox. dayo ban. dayo bi ñu ko jox ah dinaa dox jamono dox ngañ dinaa dellu waat ci wax. ni mu dominer xale yi. lu mu la dominer dominer ngañ. loo téye mu lay dominer moo la mën. téye ko ba bu mu la dominer. ba boo ko téebu du la dominer nag. waaw fa la bi ne. mais bu la dominer nga bëgg viser sa lépp ci moom ni sëñ bi nii sëñ bi ne xoolal absence d'esprit ngay am. jërëjëf buñ la naa coppet ne la falak doo ko yëg. jërëjëf euh, mbokku téléspectateurs yi euh, loolu lañ leen indiloon ci wàlli jàngatu lamb waaye ñu leen indil tey nag ci wàlli li nga xam ne moom lañ leen jëlee woon ci élément bi mooy li ñu mujj a waxtaanee maak Cheikh Thierno Ndiaye te mu ne ci biir lamb ci ñu jël leen koo xam ne da koo dund. yàgg ci bokk ci ay génération presque quatre génération am na ak ñoom ci loolu di ko dund mu ñëw nag décortiquer ñu ko lan mooy xarfu xuufa lu ci ne lan lay représenté ñan ñoo ci dominé ci xarfu xuufa ak tamit mbër yi naka lañ koy utiliser ci rawaan yi ak tamit nekkin yi ak wuti bi naka lay demee kooku dañ leen di bàyyi tey ak sunu invité Moussa Gningue euh, moom lañ leen di tàggoo Cheikh Thiaro looy tàggoo ñan sunu boroom rek mu dolli jàmm ci réew mi ay nit suñu bokkee waxante lu baax waxante lu rafet moo fa xaj waaye ay nit bu ñu bokkee ngañ nañuy dolli su nañuy xolal sunu maam yi dañu amun sutura seen bopp hmm. suturante seen biir hmm. waaye nit ñu dimbali ñun ñëpp nañu suturaal sunu bopp jërëjëf nañu suturaal sunu bopp yàlla na ko yàlla nañu suturaal suñu bopp miin yaa rabbi barke Cheikh na Cheikh Sall jërëjëf mbokk yi dañ leen di bàyyi ak Moussa ñi ngi di leen ci tàggu nag di ñaan yàlla mi borom jàmm doolu ñu jàmm ba ñu jeexal koor gi ci kàttanu yàlla noonu lañ leen bëggee gungee ci koor gi di leen indil ay invité ñu jàngat li ci biir làmb mbokk yi jërë ngeen jëf wasalaam ba beneen yoon sama xarit bi ndem si yàlla Papa Ndiir dañu mos a am muy muy taw dëkk bu ñuy wax euh, ci Salikeñe la ñu ñëw di ut fu ñuy fu ñuy fu ñuy fu ñuy fanaan amuñu ko mais mu ngi taw taw boo xam ne taw bu rëy rëy rëy rëy benn jigéen euh, ooñu nekk pour ñu ngeen fanaan fii sama xarit bi ne déedéet ñun mënuñu fanaan fii parce que dañu yore ay gàllaaj mu ne kon léegi ni ngeen def guy gi ah, kii bi ni mu tëddee garab gi du garab guy daanu waaw kon léegi yéeg leen ci kaw soo leen yéegee ci kaw ah, ah, takk seen bopp ba bër set ngeen soog a mun a dem parce que fii am na ay bukki am na lu ne mm-hmm. noonu la ñu noonu mujjee def wala yenn saa yi ñu jël ay ñax tooyal si petrole wala essence mm-hmm. hmm? téye ko suñu arme la woon mm-hmm. waaw su ko defee suñ demee ba gis loo xam ne am na ay dàngin yoo xam ne dañ leen doon gis nga xam ne suñu leen gisee rek dañ koy taal suñ ko taalee rek dañ koy teg ci ñax bi suñ ko teg ci ñax bi su tàkkee rek ñu ñu ñu ñu may ñu espace bi dem am na ci boo xam ne nag benn rëbbu mankaañ moo ñuy soowee parce que moom da doon rëbbi golo bi muy rëbbi golo ñu tasee ñun ñuy daw li muy làkk xam waaye ah ñu golo yi ñoo doon ñëw troupeau golo ñoo ñuy daw ñu taseeg moom mu ñuy làkk ñun xamuñu xamuñu li muy làkk ñun moom xamul lu ñuy wax mu jékki-jékki gis golo ji fekk moom daf doon rëbbi ak yeneen ñaari doomam mais dañ jékki-jékki dégg tëy rek gaa yi gaa gaa yi may gaa yi may yoon may yoon bi ñun looloo ñu sowe keroog parce que ci biir suñ tase woon ko mënoon mënoon naa am sax foofu ñu am am nañ fekk daal. diggante Mor Ngel ak euh, màng dañu amoon benn gàllaaj boo xam ne euh, dañuy wax ne balaa ñuy àgg. fekkee ne dinañ xam ne baax na ak li mënuy téye parce que dafa gaa gi dafa diis ngañ ba nga xam ne man kenn attanuma ko te matul matul ñetti butéel matul ñetti butéel ngañ dañuy jox bu tuuti ma jox ko ndiir bi ñu duggee ci oto bi oto bi ñu njëkk dugal dugg moteur bi moo toj ñu wàcc kooku ne moom mënatul dem ñu demaat. mais yéen waxu leen ko dara. ah ñun waxuñ ko dara xam nañ li ñu xam ñun. mais nag ci biir loolu am na ci oto bu ñu dugg góor gi benn paa dafa dugg si rek jékki-jékki ne yéen li ngeen yore dafa diis torop ci oto bi. waaw. loolu quoi mu ne li ngeen yore dafa diis ñu jamono dem dem ba ñëw croisement jam ñaaju bi benn oto bi ñu duggoon defaat noonu ni beneen bi defoon. waaw. ñu ñëw a ñëw a ñëw ñëw ñëw ba dugg biir Tëngéej benn bi suñu euh, pono bi pono bi rocceeku xam nga mujjee jël euh, ngañ sareet mm. sa Sadio mujjee euh, lañ mujjee see dugg si Dakar parce que dem nañ ba ñun nag dañu tiit suñu su ci loolu ñu yore woon di ko indi. ci premier combat mbala ñaareel. Euh, bi bi ñuy pàdd ma nga waaw. waaw boobu boobu la boobu la boobu la <laughs> boobu la <laughs> boobu la ngañ mais nag xam nga gàllaaj yooyu ñu ko doon def ni ñu màndu lañ ni ñu gëm yàlla lañ ni ñu ragal yàlla lañ ay nit yàlla lañ. parce que dañu leen wax ne soo paree si génneel sullil xam nga yooyu itam ñun dañ dañ si doon am ay recommandations daawuñu nangu suul loo xam ne par exemple duñ ko suuli ji suñ ko suulee altine ji rek dañuy damay opé ñu def opération kamikaze fi ñu demoon amoon nañ espèce euh, peinture boo xam ne fu ñu jëm yóbbu fa dara dañ ko doon def marqué dañ ko doon marqué pour mën koo xam. waaw pour mën nañ ko pour mën nañ koo xolaat waaye yooyu ñu doon jox daal ñun xamoon nañu daal yooyu la daal la tax sax mbër du mën a ñëw. waaw am na gàllaaj yoo xam ne dañ ko daan baxal mbër du ñëw mbër mi du ñëw dañuy wax ne soo leen ko defee soo leen ko teelee def du ñëw ma ne ko loolu amul ma ne ko góor gi ma ne ko loolu loolu amul ma essayé ko. mbër ma ñëwul waaw ah, mbër ma ñëwul mu ne yàq ngeen sama liggéey ñu dem ñu ñu ñëwaat retour encore ñu war ñu war ko ñu war ko ñu war ko defaat biñ ko war a defaat ñu ñu ñu teel a ñu teel ko defaat ma ma ma bàyyi lu ma deux heures de temps trois heures temps defaat ko. bi ma ko defaatee ñëwul troisième ba nag moom moo ñëwul boppam moom lañu àndal ba ndakaaru moom sëriñ bi la ñu ba ndakaaru bàyyi ba nga xam ne quatre heures six heures jot na mun nañu tàlle ñu soog a taal keroog mbay géey moo bëre moo dóor moo dóor ki mu doon bëreel mu daal ah waaw boobu boobu waaw <laughs> xam nga <laughs> jamono ki ki mu daloon kooku sama xarit la xam nga mënatuma mënatuma ah, mënatuma nettali loolu ah, ñaareel bi tam def nañ ko Ibou Ndafa ak Mor Ngeer dama toll fële nag ñoom xalifa ja ak njaga jóob ndem si yàlla ji yàlla na ko yàlla yërëm sama xarit boobu ci biir loolu ma ne ko ma ne ko ci biir loolu euh, bëri du am mu ne ma doo bàyyi li nga wax ma ne ko bëri du am mu ne ma doo am ma ne ko du am waaye daal xam naa ne daal fi ñuy réclamer affaire yi dina am kayit goo xam ne tëngéej lay bàyyeekoo pour ñëw ñëw ci euh, ngeen yëg ne waa ji dafa feebar du ñëw mm-hmm. yàlla mi dara tawul ñu dem ma ñëw ba ñëw Dakar ñu ne ginnaaw suba la ñuy bëree Omar Diaw ñëw nañu Omar Dia ñëw nañu Ibou Ndafa de du mën a bëre dafa feebar euh, naar bi nekk médecin bi nekk euh, Tëngéej moo ko moo ko seet moo ko jox euh, visite médicale bi. Mhm. gaa yi gaa yi tungóob ma mel ni ku ku koo xam ne <laughs> moo moo moo daal làmb ja bëgguma wax dara mbër parce que mbër ko waaw seen copain yi parce que dañuy dañuy passionné ba nga xam ne dootuñu xamati. dootuñu xamati lii ndax war nañ koo laal nii ndax waruñu ko war a laal mais am na ñoo xam ne ñun si jamono mu Moustapha Gueye suñ leen buggee jox yoo xam ne par exemple ñu téye ko dama leen wax déedéet parce que ñii ay kat lañ ñii ay liggéey kat lañ ëllëg si bi dañuy uti te am na yoo xam ne soo ko laalee dootoo amati jeex na um na um na um la moo tax dama leen doon sawee ci loolu mais nag yeneen ñi nga xam ne xale yi nga xam ne ñooy ànd ak yeneen mbëri ñoom loolu ñoom seen bëgg-bëgg rek lañ xaal te loolu danger boo xam ne danger permanent la la gàllaaj daal soo koy soo koy soo koy yore war nga am comportement bu normal boo xam ne war nga am bopp war nga am lu la musal loo xam ne toujours yaa ngi ci loolu fi mu nekk nii ngay bul so bul sonn ma mbëri ëppuñ ma ëppuñ ma siwo de ëppuñ ma siwo parce que su ma deful loolu ëllëg si bi dañ may gaañ mm-hmm. ah mm-hmm. te mun naa am ngay ñëw di joxañ ci dara ñu ne kii soo ko soo ko joxañee dee nga joxañ ma ko kon man alors te man sanguwuma kon kon kon kon kon kon kon kon kon kon affaire bi dafa may jàpp yu bare ngi nga gis nit ànd ak nit ànd ak nit mu dal ko do nga teg ko leneen sax fekk làmb ci biir làmb ji la xanaa xam loolu làmb ji sax bunt yi sax danger la parce que waaw parce que li fay def moo bari xëy na yàllaay musal nit ñi rek yàllaay musal jàmm mais ni yi ngay def ci làmb léegi surtout nag ak xaalis bu bari bi amul kenn kuy yërëm sa poos amul kenn ku yére sa poche ñi nga xamoon ne ñoo lay jox tegtal yoo xam ne day nekk un élément prêt bareetul ñi la mën a xoolal ne la tey da ngay daan ngañ jaañ daan Ismaïla daan keneen ak keneen daan Ibuloo ñooñu ñooñu bareetul de ñun daan nañu jékki-jékki am nañu benn sëñ boo xam ne daf ñu ne su seeroon bu ubbee su defee li muy def ba pare day wax déwén di ngeen daan kii dingeen daan kii di ngeen daan kii waaye diw bàyyi leen ko hmm. mun leen ko jaan waaw bu leen ko laal soo duñ ko laal mais léegi amul léegi suñu la fayee loo nga dem bëri ji. <laughs> jël combat jeexagul ngay ngay waxaale beneen combat kooku ban risque moo ci am ci côté mystique. waaw kooku xam nga ci biir loolu euh, euh, mbër euh, jël si jamono am na ku demee ni Barabara da doon jël lu mat cinq combats ku demee ni Falaay da doon jël quatre combats cinq ku demee ni Mbaye Guèye da jël trois combats komba mais léegi jamono jii. loolu dafa nekk loo xam ne euh, am na am na risque tuuti parce que nga nekk benn ñaar nit di la liggéey loolu loolu loolu ëllëg si soo rëccee kii mun naa am doo rëcc kële ah yàlla nag moo lay suturaal pour nga rëcc ñaar ñëpp yàlla moom ku mu ku mu ku mu dimbale rek ku mu dimbale rek nga nga nga nga ñëw kon donc ci biir loolu am na ci loo xam ne daal je crois que bëre kenn ba mu jeex nga bërewaat ak keneen. laal moom mooy gën euh, dañu gis léegi yées yi dafa gàllaaj goo xam ne gii. léegi léeg da gis mbër mi bu daanee après fërënku nangam loolu gàllaaj la mbala tamit am koo xam ne dafa ànd ak mbër mi moom mooy daanu yées ñuy tekki gàllaaj yi loolu euh, est-ce que dafa am cirque bu ci ne euh, cinéma mbala dafa am gàllaaj buy def loolu. waaw ngay jërëjëf parce que euh, gàllaaj soo ko xamul. di nga am benn di nga am comportement yu bari yoo xam ne da ngay bëgg nit ñi xalaat ne loolu gàllaaj la te loolu du gàllaaj dama lay wax ne la su fekkee ne yow daan nga dem di daanu yësi suñ la daanee nga jóg dem dem dem sumukaay loolu na ko nit ñi seetaat loolu du réalité ci man loolu man du réalité réalité du réalité ci man soo soo daanee def ko suñ la daanee nga jóg dem doo ko def waaw kon loolu lan la loolu mooy lan mhm. ah lenn kañ moo mënoon am nga daan def ko nga daanu def ko ñu ne gàllaaj la Hmm? am na ñoo xam ne dégg naa nag ci ci ñi nga xam ne nee nañ yaasin bii la ñuy jël biteel ñi ko di ko naan pour mu pour mu pour mu indi leen ñu am énergie yeeg naa loolu loolu jarul loolu loolu li ngay wut utal mankaane rek mankaane ku dal sa kaw daanu mm-hmm. mu jeex mm-hmm. yaa may déglu mais yow bugg a xuloog nit jékki-jékki rek daanu mais kooku soo fekkee nga yat foo jëm mm-hmm. ah nooy xeexee ku daanu si nu muy xeexee lu mën a xeex xam nga kon am na ci loo xam ne daal je crois que nit ñi euh, ñi fi nekkoon daawat daawati yeeg ay ati at te dund loolu ñoom xam nañ ndax loolu am na wala loolu amul waaye daal li wóor ba wóor daal am na ci yoo xam ne daal mbëri ndaw yi war nañ koo bàyyi daal waaw war nañ ko bàyyi euh, jëm ci li nga xam ne mbëri yi nga xam ne dañuy daanu ba pare di fërënku ak seeni i gàllaaj lan ngay wax mbër yooyu di fërënku ci suuf si di fërënku ñu leen di xëcc ñuy jireeku waaw ngañ loolu loolu dama lay wax ne la soobu nañ gëm yàlla parce que en général mbër mu mbër mu gëmul yàlla rek mooy def noonu yow galaaj yi nga takk dem nga daan ci nit galaaj yi nga takk dem nga ñu daan la ci waaye doo gëm yàlla faga su dem te xam ne ku bëri dañ lay daan ah ana ana ana ana ana ana ana ana bërëngu ana ana ana tournée di jooy di yuux fu ma jëm ak yow fooy foo jëm ah yow loolu benn benn benn espèce ay ay minutes rek nga koy def am na ci loo xam ne soo buggee dégg sportif mooy koo xam ne dafa mun a muñ ñu gañe la nga nga solu dem ñibbi xam ne tey jii dañ ma daan suba da ngay def loolu daan lu tax soo daanee doo soo daanoo doo def loolu soo daanee doo def loolu mais am na yoo xam ne yooyu yooyu amul amul ay tey jii wuyaay fu ma jëm mooy ma yooyu su doon loolu kon bul bëri da ngay dem toog sa kër parce que ku bañ ñu ku bañ ñu daan la rek bul bëri ku bëree dañ lay daan ak koo mën a doon dañ lay daan kon donc may wax mbëri ndaw yi yooyu yëpp ay futilité la nañ am seen gëm-gëm am seen euh, seen dignité seen personnalité ñu daal na sax nga nga nga accolade waa ji foon ko daw loolu ñu ñi sax dañu lay estimer ci loolu mais nekk foofu ñu lay xëcc doo dem di dina ko ñi ñëpp dañ lay jéppi te nit ki suñ la jéppee mbañeel mooy ñëw ci sa diggante ñoom euh, jëm nag ci sarax yi tuuti rek bari na léegi li ñuy saraxe ci làmb ji bari na fruit yaa ngi ñëw ci làmb ji. lu ne la indi ci làmb ji mburu mi lépp sarax fan ngeen ko daan defee dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ak kaamil yi tamit léegi ba ñu ko indi ci làmb ji ba sax ustaas yi ñu ngi ñu ci euh, jàjj di ñu ci yedd te it ndax alxuraan gi euh, sarax yu metti yi ci làmb ji sarax fu mu daan am ak mbër waaw ngañ sarax am na ci loo xam ne lu ma gis ci làmb ji loo loo xam ne daan naa ko gis tuuti par tuuti mais bariwul parce que gis naa ñoo sarxe ci làmb maanaam lamp lamp lamp gis naa ñu sarxe ci làmb euh, lamp torche lamp kii nu mu tuddati lamp gis naa ci làmb ñu sarxe ay kayit gis naa ci làmb ñu sarxe ay xaalis gis naa ci làmb ñu sarxe ay banaana gis naa ci làmb ñu sarxe ay orange lépp waaye li nga xam ne tey jii gis naa ko ci yenn yi dañu war a am xel ak xalaat xel xalaat ci lan mooy suñ ne la demal na nga génnee kaamil alxuraan mbay géey da daan génne kaamil alxuraan oh, waaw waaw duuba amul combat bu mu bëri te génnewul kaamul alxuraan waaye fa mu ko doon joxe mooy Grand ci jumaa ji kon kaamil jumaa ji la moom mm-hmm. ak jàkk ja mm-hmm. ak daara ja ak koo xam ne tam tam moom lay jëfandikoo par exemple sarax bi ngay saraxe tey pour mu jëm dimanche su ko yàlla nangoo jeex na kon mun nga ko saraxe jàkk ja mun nga ko jox taalibe yi nga xam ne ñooy jàng mun nga ko jox ilimaanu ilimaanu jumaa ji ilimaanu jàkk ji foofu la kaamil am xam nga waaye ci biir loolu am na ci loo xam ne daal comme du kaamil nekkul ci bëri nañ ko saraxe fi nga xam ne mooy fañ ko war a fañ fañ ko war a saraxee daal waaw loolu rek loolu loolu laa ci am lu ma ci wax parce que ci biir loolu gis naa ñu koy saraxe ci biir làmb ji waaye daal dama leen di ñaan daal léegi comme ñëpp a ngi ciy wax te ñoom joomu jullit lañ euh, xëy sax seen ufuri làmb mooy mooy indi yooyu wala tegtalu làmb moo koy indi waaye sëriñ bu leen ko waxati nañ dem sa jumaa ja jox ko ko parce que lañ suñ ko joxee sa jumaa ja la mu leen waree njëriñ la leen di jëriñ ci làmb ji kon nag ñu nëbb ko joxe ko ca ca jàkka ja mbaa jumaa ja mbaa daara ja donc loolu tam dafay am toujours dafa dafa leen dafa leen di sowe mm-hmm. waaw waaye gis naa gis naa ay sarax yooyu yëpp ci ci làmb waaye ci biir loolu daal euh, li ñuy saraxe daal xam naa ne bari na mais nag li ko waral yëpp ngañ mm-hmm. xaalis bee ko waral xaalis bi moo indi loolu yëpp xoolal ma wax la par exemple mbër tey jii di nga ko encadré mu nekk mbër mu ndaw nga dem ba tey jii mu am 100 millions soo amee benn yoon 100 millions ñaari yoon 100 millions yow mi doon nekk dirigeant faaleetu la da nga koy neexal rek pour indi wa de mais faaleetu la <laughs> la kon xaalis bi xaalis bi occasionné loolu yëpp waaye ci biir loolu yëpp euh, téere alxuraan daal nañ ko yóbbu sa jumaa jaak jàkka yàq ak daara ya daal. njariñu saraxu picc bari na léegi de xale yi yematuñ ci benn picc ñaari picc léegi kaaf lañuy ñuy indi mala yooyu. li ma ci xam nga lenn rek la je crois que euh, dañ koy def dañ leen koy tegtal pour ñu xam nga euh, picc suñ nit ki koy jàpp da koy jàpp tëj ko amul liberté donc nga ñëw génne ko mooy dama bugg sama liberté waa de jox ko liberté liberté boobu nag muy muy muy mu muy am mun na am yàlla dina la si dimbale parce que bakken la xëy na loolu rek lañ ko loolu lañ ko jëlee parce que lu nekk rek am na am na am na am na ñu koy doxalee daal waaw waaw petax itam ñoo bokk àttee rek parce que petax yi euh, euh, euh, Mbaye Gueye daal na ko indi Moustapha Gueye daal na ko indi xam nga mooy benn lañ doon indi ñaar mhm. man sax am na ci suñu match boo xam ne ñu nag waa Gambie yi crois boobu booy Bandi mooy suñu capitaine dañ ñëw Gambien yi indi benn pitax ñun ñu indi ñett waaw gañ dóor leen trois <laughs> waaw waaw ci biir loolu am na ci ñoo xam ne tam li muy li muy li muy dindi ci li muy dindi ci ñoom la parce que lu mu gën a naawee wala lu mu gën a amee liberté dem ci kaw rek mun naa am sooy am ndam tam noonu la ko yàlla di defee xam nga loolu la loolu la daal yenn saa yi nag am na ñoo xam ne dañ ci def téere pour pour pour yóbbu sa fit takkal ko loxo yóbbu ko bàyyi la nga dem parce que su naawee rek sa fit bi dootul mën a toog day dem rek tant que mu ngi naaw sa fit day dem rek dootul mën a waa ginaar itam ci biir loolu xam nga ginaar deretam dafa diis deretam dafa diis dinaas ah, deretam dafa tàng moo tax ci biir loolu en général soo gisee lu tàng rek lañ koy génnee li ko saraxe wala am na ñoo xam ne par exemple su dee nit kii dafa dëgër trop trop trop trop te xamul luñ ko moo tax mooy mooy permettre yaay jatan ko mm-hmm. xam nga pour yow doo mën a doo mën a seqi tànk mm-hmm. xam nga wala doo mën a dox suñu leen la rek foofu ngay foofu ngay toogee doo mun dem daal. waaw loolu waaw si loolu lay ñëw waaw looloo koy tax a jóg <laughs> <laughs> tënk nit moo koy tax a jóg. <laughs> mais kon daal lan lay représenté ci waaw gàllaaj li muy représenté ci mbër rek man euh, sportif laa woon de haut niveau football naa Gia football naa Jaraaf xam naa gàllaaj ku nekk sàng na ma uti naa ko nag fu nekk tam mm. mais ci biir loolu daal luy li la. waaw ah, li ñuy mottali la mais na nga na nga na nga na nga am sa entraînement ba mu doy am sa physique ba mu doy mën a xeex mën a moytu ba mu doy nga soog a nag uti uti sëriñ mm-hmm. parce que sëriñ du lu bëree bëri bëri sëriñ pour mu feeñ ci làmp sax jafe na pour mu feeñ nii waaw dafa jafe ba yow tam koo xam ne yow yaa ngi yore sa loxo soo ma dóoree ma fayu mm-hmm. ana sëriñ ba ana sëriñ ba hmm? wala gisuma ko ah non doo moytu doo song doo song am nga mbër nag loo ko daan te indiwul prétexte mhm. ma wax la ko tey jii wala jii ñu ko kenn mhm. mbër moo gis day jii ñaate waaw day jël prétexte day jii ñaate ngay wax ne sa xaritu intime ngay wax ne moo ma daan waaye sa xarit boobu ni mu lay daanee yow nga ànd ak moom tukki fu nekk dugg fu nekk bokk di añ bokk di li may jëkka li may ki may jëkka wax mooy euh, booy booy lansaar bi Siteu hmm. waaw <laughs> am na ñoo xam ne fanaan nag am ñaas nañ ko defee lu sax lu ñuy téye kut ko kut mais ambiance beeg solu fii ak solu daal xam nga am na ñoo xam ne noonu lañ bëgg. Mm-hmm. ah foo leen fekk ñu jaagaar jaari takk lii takk ki nii takk ay jaajaak ñooñu dafa ñoo xam ne ci mbër yoo xam ne moom lañ bëgg. Mm-hmm. mais lu mun naa am sax duñ ci def lu bari. Mm-hmm. mais mbëri xale yi ci am gàllaaj moom. waaw dangay wax ne Siteu ci la bokk. ñi am gàllaaj waaw ñi am gàllaaj Siteu ci la moom moom rek laay lim ci la bokk ci mbër yu ndaw yi. xaw a euh, ténor yi comme ñan comme kan comme comme ban génération. waaw waaw waaw waaw waaw ñooñu ñooñu dañu dañu gëm gàllaaj gëm. comme kan comme daf ko gëm di si def ak xam. Mhm. waaw parce que bokk na ci biir bokk na ci bë bëreem. est hmm? waaw xam naa daal mystique du euh, yóbbu na ko foo xam ne gis na ne lii mystique la kon mënu ko bàyyi attention ngañ. dafay am yoo xam ne ñoo xam ne suñ la joxee tegtal ba nga def ko sa bopp dafay yàqu dootoo gëmati dootoo gëmati leen da gëm loolu gàllaaj Euh, Modou Lo am na ci loo xam ne man maa ko dund xam naa xaw ma Modou Lo nag quand waaw mais li ma gisoon Mbaye Gueye 83 kilos di bëri ñoom Double Less am na ci loo xam ne entraînement ngi la fit a ngi ci woon waaye gàllaaj a ngi ci woon dafay mottali dafay dafay dafay dafay mottali noonu la parce que waaw parce que Mbaye dama lay wax ne la am na ci loo xam ne euh, loo ko mos a jox pour mu am ndam parce que tam euh, Modou Lo ndam lay bëgg loo tax muy uti gàllaaj ji parce que buggul ko ko daan képp bépp mbër boo xam ne bugguloo ku la daan rek da ngay gëmi sëriñ da ngay uti da ngay uti da uti ga da ngay uti gàllaaj ñaareel bi tam koo xam ne tam dafa ragal defet day uti gàllaaj ñooñu il faut ñu uti ko parce que dañoo ragal defet bi defet bi ak seen taay looloo looloo tax looloo tax ngañ dinañ dinañ dinañ il faut il faut ñu gëm ko kenn mënu koo bañ a gëm parce que mbëri fi njëkk yi dañ ko dañ ko gëmoon xëy na ñii nag dañu ëpp xaalis rek ëpp connaissance ëpp xame ëpp dem fu leen neex. loolu rek la. léeg-léeg ñu ne galan gii géwél bii di tëgg moo tojal mbër mi loolu am na ci gàllaaj waaw loolu nag mosuma ko sentir parce que ñun bi ñu Ismaïla Faye dem si yàlla Ismaïla Faye li ñu tëggal amoon nañ benn sor buñ koy takkal bu jóge woon yoof waaw bi mbay Guèye ñëwee itam euh, kii nu mu tëddee euh, Mbaye Guèye Faye mosuñ ko ko jox benn yoon mm-hmm. xaw ma xaw ma ñaari yoon mm-hmm. xam nga mais loolu ci biir loolu euh, ki lay tëggal dafay war a am assise bu dëgër parce que su dëgëree rek mbër mi dëgër. su dëgëree waaw tëgg am na am na lool. Hmm? lool tëggkat bi sax da ngay jékki-jékki yow mi tey jii da ngay dem yóbbu turam moo lay tëggal li may tëggal di war na neex war na nekk sa njiglaay mu am sarax nga génneel ko ko yow doo ko ko wax. ne yow yaa koy génne waaw. moom moom moom pour pour mu jig la pour mu mën a ànd ak yow parce que dañuy wax ne seen rawaan ànd na waaye lii ngay def pour mu gën a ànd nga xam ne fu mu la fekk fu mu la tëgg rek nga am ndam. kon du tëggkat bu ne rek mbër moo gis rek tëggal ko. waaw léegi la ngay gis rek sam kii sama xarit la mën na tëgg rek ñëw tëggal ma mais normalement Balla ñu tëgg ñu doon tëggal ñu doon tëggal euh, Double hmm. eh, ñoo ko war a ñëw tëggal si ñoo war a tëggal Sa parce que loolu lañ damp loolu lañ namp loolu lañ donn xam nga loolu ñooñu waratuñoo bàyyi loolu ginnaaw parce que ci ci ci ñoom la bokk te ñooñu seen géwél yi dañ daan bari xam-xam soo mën a bëri su mu su fekkee ne euh, dubalees mus naa mus naa bëri su jàppee foo xam ne baaxul sabar bee ko koy wax ah. waaw waaw fàllaay bi muy bëree amoon na benn benn géwél bu ñuy wax euh, kii waaye nu mu tëdd waay mu nga dëkk woon Sali Keñe ku ñuy wax euh, Keita fu Falaye Moussé jàpp foo xam ne baaxul daf ko koy wax ci biir ñaareel bi su Falaye waree bëree balaa muy bëree mbër mi daf koy takk ci biir sabar bi takk ba mu ne këcc mu dóor pegg mu dugg mu tëgg waaw moo parce que mbër mbër ki lay tëggal war na am xam-xam su doon su doon jamono Falaye ñu ko doon tëggal dafa Keita dafa am xam-xam xam nga mu nga dëkkoon Sali Sali Keñe xoola ñoom Demba am na ci loo xam ne da ngay am mottalukaay dangay am ñoo xam ne ñoo lay mottali ci boor bu nekk di nga wuti sëriñ mais am na ci ñoo xam ne ci biir ñoom am na ci ñoo xam ne ñu ngi gis ñoo xam ne kenn du ko wax de lu ñu lay gisal lu leer a leer a leer loo xam ne ñoom duñ ko wax dañuy noppi rek mhm. loolu la waaw li may tëjee ngañ rek mooy di la gërëm di la sant parce que foog naa ne li nga ma interviewé bari na ma lay ñaanal yàlla yàlla may la gudd fan ak ñi nga àndal ñaanal la paju ajo ak mbir mu jub yàlla def la nga yàgg lool parce que ci biir loolu mënuñu wax làmba te duñ la wax loo xam la loo loo dund la parce que ku doon ànd ku doon topp ñoom Pape Gueye ñoom saajo mbappat mu nekk nga dem fa boobu jamono melul nii waaw mm. ah, tey jii ku mu neex nga wax lu la neex waaye te jii boobu yow yaa ko doon def soo ñëwaatee nag ci ah, nekk ci télévision di wax affaire làmba donc loo dund la parce que mbër mu nekk mbër mu mag bu nekk fekk na la sa sa biir kër di entraîner ñoom Doudou Bakka ñoom Antoine Ndong ñoo ñëpp Géey ah, Jóob Fara ah, <laughs> waaw kon donc yow yow soo xamul mbër kenn du xam mbër kon donc loolu tax li nga ciy commenté ak li nga ciy laaj moo tax danga xam loolu ba pare di ko laaj nit ki nag li mu euh, li mu li mu mën ak li muy liggéey su ko moom lay mën pour mën ko mën ko mën ko extérioriser mën ko waxtaanee parce que fii ba suba mën nañoo waxtaanee maa ngi affaire làmb ci façon bu nekk nag kon nag jërëjëf man di leen gërëm ñu def loolu jàmm ak jàmm jërëjëf ngañ <laughs>